لك العز والجميل أناني أمان بالبلاء وفي الندم وفيت شفاك الجود والفقر من إذا ما مدى كل فقد مال لي به بداد وسهولا فقال باطن كريم لطيف يمدح يمدحك يمدح وفي مليء بارك بسلك المال محمدنا المهدى وزاكي لمالكي عليه صلاة الماء سلام من المين رسول الكريم الكريم المكرم عليه سلام بالظلم والمين سلمت من الله وللآل ما من فوليس بالمسيح لقد جاءكم أسلام على غير مرسل أماني بالباب عن السلم والوسيل مع المصطفى فصل أماني بجانبي وإني على خير كثير مع الولي نبي نبي الجمل الله زاده كما أحسن الأخلاق وبالذل والمن على من يرفع بالمصطفى النبي قلوب الورى نور مانعة نويت سكوتا لسكرا مخلدا على من بيقني يصفي كمالي فليت بأمن الله أباق ومالك وبالمصطفى

على الله حسني صلاة مسلما على من بيدني لدى الله سلمني زمام وناصري لدى الله في يمي وما رد من مالك بعد بالغني يميني على الأعداء سيف المعنب فمن لم يسالني كمن ومن يميني على خادمي جمع وسعدي زمام سعي الإسلام يا من وقوسي في الدنيا وسلم علي لوجه الله إليه سنا لمن أعاني بالباقي عن المكي والمدين بربي شكري بعد عمي على النبي فلا تنتهي كمي زوجا من الطبيب يسفي لي الخيرات ربي بجاه ñun taal bi taal dara di sëñ bi moom rek laa ñun taal dara dañ taal sëñ bi rek féet ci lépp nag bu fekkee ci lépp yéeg yéegal na ko kon ñu sant rek ñu si wax sax dàkk ci seen sax dàkk ci seen suñu bopp jërëjëf jërëjëf jërëjëf tawfeex moom yéeme na lool tawfeex rek la am na sama borom ak coobaram ak jëfam suñ bi tawfeexi borom rek la loolu tawfeex rek ay am na jëf sant rek sax dàkk sant sax dàkk sant bi lu ci def rek doyut nag alhamdulilah rek la ko bëgg a ànd ak yéen rek jërëjëf dama ko bëgg a ànd ak yéen rek jërëjëf ñun daal jekk nañu boo ko jublu woon ñu yendoo ko fanaane koy dañ koy def nga koy jàng ca tënc ma it ña ngay jàng fanweeri kuréel ak ñett waaw yoo xam ne bu ci ne bu jàngee rek sa morom topp tofal ci waxtu julli waxtu julli dong mooy dogantal bi waxtu julli rek mooy dogantal bi waaw ñi ñi itam euh, démb wax nañ ñu nañu bu bu suba gi 9h ba 10h bu guddee tamit ñu defalaat. ñun ndigal loolu dinañ ko def waaye boo boo ñu ne woon bis bépp it ñu def <laughs> boo ñu ne woon guddi gépp it ñu def ko. dama xëy na loolu ànd ko ngeen. alhamdulilah jërëjëf dama xamul foofu foofu dara. kon dama wax ne dama koy ànd ngeen. alhamdulilah jërëjëf. waaye waaye waaye daa daa ko jëm. yaa ko jiite <laughs> li ngeen am ci xéwal de ma ko yëg ci mën ma ko wax sama lan la waaye xam naa ko nag